ci document bi nga xamné catalogue catalogue du ministère des mines et de la géologie ñom ci sen bop ci dëkk bi indice de Wasangara ak ci katake ma yamuma ci dama sol dem ba foofu yegg ba Kéñaba ba ma demee Kéñaba ca commune Medina Fulbe waxtaan ak askan wi ñoom ci seen bopp xam nañ ne seen suuf si dañ koo bëgg nangu ci seen loxo et loolu dama bëgg ngeen xam ne day jeex ci Sénégal li ma bëgg ngeen gëm ko mooy man Bougane Gueye bu ma jëlee réew mi amul lenn loo xam ne suuf la nit ñi di ko jël di ko saax saaxee dootul am dara ci réew mi loo de ne dañu koy jël di ko jox tubaab yi et d'ailleurs et d'ailleurs c'est dans ce document j'ai dit ci biir document bi amatul Ben Souf bo xam étranger mën ko am bir Sénégal ñoom doxandéem yi ñu jël suñu réew bëgg ñu ci soppi ci suñu réew ñu nekk ay kat ci suñu réew duñu ko nangu duñu ko nangu duñu ko nangu on prendra nos responsabilités. Cette jeunesse est déterminée pour transformer le Sénégal. Ensemble, on va transformer ce pays. Ensemble, on va bouter dehors ces politiciens professionnels. Ensemble, nous qui nekk au milieu nous pouvons Ensemble, fi ensemble sénégalais yi xaj de Sénégal mané dama bëgg jërëjëf dama bëgg ngeen tak seen dig dama bëgg ngeen xam ne réew mii yéen sénégalais yi yéen a ko mën a sopp dama bëgg ngeen xam ne vous la jeunesse bu leen nangu ñu leen di utiliser dëgg la réew mi metti na dëgg la njaboot gi jaaxle nañ dëgg la nit ñi seen xel dem mais gëm seen dina jeex incha rabbi en 2024 ma ne dama ànd ak sumay doom barki xaadimul Je bu deenee ne nattuma soppi Sénégal yàlla bu ma un dëgg bi mu ngi fi kattan wi mu ngi fi pas-pas wi mu ngi fi yéene bi mu ngi fi bi mu ngi fi et yéen sénégalais yi ku leen yërëm ngeen soxla yéen sénégalais yi ku topp seeni soxla ngeen soxla et loolu man pare naa buggaan wax naa une fois élu à la tête de ce pays je ne serai pas le père de la nation je ne serai pas le gardien de la Constitution. Non, je serai le serviteur de cette nation. Je serai le serviteur number one des Sénégalais. Mon objectif, mon objectif est de permettre aux Sénégalais de vivre dans la dignité et dans la décence. Ce ma bëgg mooy yow jeune sénégalais bi sénégalais. Je ne mënoo Sénégal non dama ne dama bëgg nga gëm ne yow jeune sénégalais bi sa tekki mu ngi biir Sénégal dama bëgg nga comprendre ne yow jeune sénégalais bi li ñu war a soppee Sénégal mu ngi fii ci réew mi et wax naa ko ci biir livre bi tënk naa ko ci tënk naa ko en vingt quatre axes prioritaires axe bu ci nekk gëstu nañ ko càmbar nañ ko axe bu ci nekk dem nañu ci ay boroomu xam-xam dem nañu ci nit ñi déglu leen dem nañu ci nit ñi ñu wax ñu seen xalaat ba ci napp gi ba ci mbay mi ba ci càmm gi fexe nañu ba autonomisation des femmes parce que man bugan dama gëm ne réew mi bu waree dox ci jigéen ñi lay jaar man bugan dama gëm ne li doxal réew mi yéen jigéen ñi da ngeen ci am part dama gëm ne tey jii yéen jigéenu Sénégal

parce que dañu de parrainage dañu de parrainage yéen comme ça sa bopp dañu parrainage mais de bëgg ngeen nous ne ñun dañuy dem dama bëgg ngeen ñun sa nañu comprendre ne xale yi mag remercier parce que gëm sa bopp parrainage dem parrainage vous savez pourquoi lu tax may remercier gëm parce que nous avons une fiche rek nga remplir signé déedéet ñeen waa gëm képp ku dafa joxe copie pièce d'identité et loolu ñun dong ñoo ko demande moo tax parrainage il y a plus de 15 jours depuis plus de deux semaines nous nañu parrainage kon yéen Nous nous war féliciter yéen nous ñu war Gisna jaajëfal gis Xelkom Gisna wa Kumpentum gisna wa bout, Pout wa Touba mak yen ño bok gisna wa sanui gisna wa patarsin gisna wa fatik wa gis naa waa c'est juste pour dire c'est le Sénégal qui est là yen wa djurbel ken amul senfei, fay gis nañu waa Kaolack ak madame la ministre Ndeye Khady Diop ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñu ngi sant également waa Géejawaay yéen waa Géejawaay kenn amul seen fay gis naa ni ngeen taxawe gis naa ni ngeen mobiliser gis naa waa Kër Massar fi mu nekk nii ku ne mu ngi yëkkati loxoom gis naa leen yéen ñëpp gis naa waa Yëmbal gis naa ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. fi mu nekk waa waaw kër Madaro Gisna naa kër Madaro yéen ñëpp gis naa leen waa waa Nungu Siin waa Nungu Siin gis naa leen waa ñaani tukuleur gis naa leen ñaani tukuleur maa ngi leen sant Gisna naa Ibrahima Thiam gent kay maa ngi koy sant Gisna naa waa kër Madiabel jërë ngeen jëf kenn amul seen fay maa ngi leen di remercier di leen jox rendez-vous à très bientôt merci rendez-vous le 25 février Inch'Allah.